ginnaaw raay nag am njool yàgg na faa génne jombal gaay ndax Tyson fa la génne waaw kon bu fa peres génne rek ma xam ne ginnaaw raay min ne njool waaw. am na mbër yu naqari wutal adversaire. xaw ko bari na oh xale bi mat na mbër. bari na wóop wóop wóop bari na mbër yu naqari wutal adversaire. wuli aaj la bi maa ngi lay waaw. wuli maa ngi gis ma def nii. bilaahi damaa jooy. keroog mos ma jooy ci la mais bi xaaj bi ñëw. Oh. ma gis lëng di naaj ak bakkan yi vraiment mu am déception nga déet dafa fort mbokk nga taxaw mënutoo def dara sama mbokk la déet dafa fort billaahi wallaahi non sa a rafet bu doon jàmbur sax nga yërëm ko billaahi wallaahi taala parce que dama xam maanaam après moom li mu ci dégg ak li ko ci wax toog jàmbaar la billaahi wallaahi boo tax keroog sama xol da kaw dama jooy wuli waaw gis nga mbott nawet yëpp mhm. ku leen bëgg a tàccu sa tool booy kese Tafatin lu ko waroon ci lambu ji côté entraînement mais na ko amit dawul foolewul bés bi way wana jom wana fula jom la de dawul arrière wa mënoon naa arrière mënoon naa daw nee naa ko nee naa ko ki la daana daan yëpp moo daan Modou Lo di waari sanen bi Eumeu Sène rek ko jaaxal ak Bombardier Eumeu Sène dong nga ko jaaxalak ak Bombardier waaye moo daan yëpp ku daan mo ku daan Modou kese doy na sikk daan Tafatin vraiment waaye yow yaxee jom yëg Yékini ki moo ko rëy di. père Max nee na bi ko ñëpp ragalee. moo ko daan Balla Gaye mën nañ ma ko jox. bilaay ay defetam ñi ko daan toolu ñu noonu. ba noppi li ma neex si moom Tapha keroog daawu na jom lamin wala fula wala ngor xam daanoo baax na. waaw waaw boobaa ak léegi déggante ngeen Tapha. bilaay dama ko bilaay boo bële. soo bilaay ñu wóoto woon ak seen naan tey sax tey sax dafa am face à face. waaw 2STV. mais Lamine sa ngi ne Cobra man na li ma ci jaaxal Cobra yow nu commande ko tax nañ wuli bàyyi lamb non non pas gi mais bi mu jëlee lu toll jus original Cobra teg la ko Lamine waaw dañ cee war a def lu koy sa ñor waaw bàyyiwu ren moom dama waxoon ne du aw ma jotu combat da da ngay ne sànbaay li nu ma tënk nii laa fexe am résultat waaw waaw te résultat am na. am nga résultat bu baax. résultat am na. waaw tey ku wax. Euh, jus di nga wax jus original. original te tey boisson énergétique yi ne ci réew mi. waaw ak bari mais fii mu toll. waaw bi a siiw Cobra la. Cobra moo koy yëngal instant bi. moo koy yëngal lam sax même fii mu toll jaaykat sax dañu mën a. Eh, père Pala moo yoroon mbër mi nekkoon Cobra. léegi yow nu kuréel gu nga nekk ma nga ca ma moom diwaasoo bi ma nga ca Maroc. Cobra doo leen porté. Cobra nga ca Maroc. nu kuréel gu nga bokk. waaw sa tour lañ jël a ngi liggéey ak Lutte TV. waaw ndax seen xol seet na liggéey bi nga xamante seet ngeen ko Lutte TV. non yow vraiment sunu xol seet na buy paa bi ci moo la bëgg boppam ak père paa mii parce que li ñu waxante woon sax def na sax contrat na mais yéen a ngi continuer di def ba léegi li ngeen war def te it man itam rëccu wu ma ko dëgg la bi ñu ma laajee ne ma est-ce que bu ngeen si ngeen ñoom di ngeen ci am satisfaction bu am solo te it bu ñu si nekk yéen vraiment gis nañu ne am nañ ci satisfaction bu am solo lam bu ñëw Lamine damay jox temps dantam bu ma neex loolu loolu rek cër la xam ne vraiment Lamine contrat bi bu jeexee damaa bëgg ñu yokkaat ah waaw ah, wax nga waaw day bëre wala tuusul de non toujours waaye dana bëri ah. ah a bañ a bëri. mais Lamine. jërëjëf kii na ma gën a. jërëjëf ku ne desi ba. Mohamed Mohamed soxor la kii. di wax ne Lamine ñu ngi jëm grand magal Touba di wax Sénégal yëpp ñu ngi waaj a dem Touba waa dinaa la jox dinaa la jox Cobra amul benn problème di wax ne Sénégal gépp dama bëgg kuy dem magal buy jën poisson Dakar. jus original. Ah. mu ngi Touba di ko lëmbee li fa nekk jus original. waaw mën nañu cee magal ba magal gi jeex te du manqué. waaw waaw kon nag képp kuy jullit maa ngi lay ñaan nga magale jus original mooy jus bi nga xam ne mooy jus askan bi mooy jus bi nga xam ne mooy jus social. ba ah. pare dañu ko way ci magal gi ko prix du abordable. comme la lamb ci yëngu. donc danañ dewen lay gën a yokku vraiment nu ngi sant Ndoukoumane groupe ñëpp la nii di gërëm ñëpp di leen sant bu baax yow itam nit ku baax yaa ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ba tey Mouhamed kontaan merci beaucoup waaw jërëjëf loolu mu wax ci original bi bi dégg nañu ko bu nekk ci boo xamante ni bu ñëwee ci làmb ji daf ci dugal loxom sponsorisé promoteurs yi ak waa làmb ji yëpp kooku nag Ndoukoumane groupe Ndoukoumane groupe moom moo ko créé mu doon loo daal lu am solo la waaye gis nga tey jii nag gaynde yi dañoo wàll si Lamine xoolal caatu caatu yaraax anam caatu yaraax ngi noonu lu muy def noonu moo ko wës jàmbar muy def day gemb wala est-ce que nekkul di suuru ah suuru ñaari bouteille daal la ñu andi ñaari bouteille la ñu indi benn ba waaw tooñ naa sax ni leen ndoxu xamaa waaye ndox mu weex ci nekk waaw ñu sotti ko ci bunt bi waaw beneen ba ndox ndox mu weex tàll la ci nekk ah. lañ yor que ñoom amul lu ñuy amul lu ñuy fexe nar a bëree de man di la ziar tey. maa ngi lay fay bu wërëb alaaji Lamine. di ko waaye bu baax a baax lamb lok di la nuyu Lamine di nuyu bës suñu xarit bu baax a baax a baax amoon nga yaakaar ne tey moom yaay bëre final bi xanaa. ah oui amoon nañu yaakaar bi kay daa ngay gis ne jaam ak pexeem yàlla ak dogalam ñiy bëri tamit suñuy nawla lañ dañ leen di ñaanal affaire bi kum jig rek yàlla na ko yàlla may. na solo dinañ ci ñëwaat diggante armée diggante caatu ngéwal ak Aliou Fat Fat armée sible na fa téye seen bopp ndeysaan armée sible na Aliou Fat Fat ak armée Caatu Ngéwél moo am ngemb la am lu zone bleu zone rouge yi ak blanc bi kii moo ngemb tour tour rouge laal si tuuti Senghor Aliou Fat Caatu Ngéwél moo njool moo jóge Yoof su ma juumul tey xeex aw yoon lañ teg ñaari tànk yi ak ñaari tànk yi jóge si géew bi daanaka bokkul mais rek jaxaar Aliou Fat Fat a ngi lewtoo wàcce garde bi taxaw di ko déglu Armé bu Ngewal na mi ngi def ay assurance yi ñu xool ba xam fu muy mujje daa mel ne daa bëgg a jàpp dem waaw waaw ndeysaan bu ñu ñemeentewul dañuy dem ba si wetu saako ya ñu baaxal ko foofu ku gisul geew daw génn noonu la demee ndeysaan arbitre baa ngi wax ak ñoom nan leen bëre leen waaw ñoom dañoo mel ne ku bëriwul. armé bu ngéwal. waaw mais niñ taxawee baax na. waaw waaw. amaare balaa ngoog. drapeau Cheikh Ndigal. waaw waaw jeune promoteur. sa daw armé bu ngéwal da koo bëgg daw na génn. moom nag daa bëri ay système. moo fi amoon caatu yoof juum ñëwaat di confirmer tey boo tegul lu damay ragal waa Yoff may ko feet parce que léegi booy dañoo xewal loolu waaw waaw muy gaaw rek dàq fas yi ndeysaan armé ngéwal a ngi dox si kawam caatu ngéwal a ngi dox jàppante nañ hop hop hop na ko na ko nag jàppoo nañ caatu ngéwal caatu man bu ma xasee booy rek gaay dañuy dégg woof ma ngi koy rokkas ko gaañ dara ko gaañ daw na def demi flexion tibb sa suuf loxo lay jëmaat de ay waay bloqué na loxo ya dana ko gaañ épercule ay waay saaga jëm na fu ay waay doyul doyul doyul doyul doyul jàppaat na Senghor yi daa gaaw a doyal mais fa mu téye bu fa baaxaloon mën naa am combat ba hop hop hop sama yaram daw na xale yi ñemente nañ Lamine ah. borom Kër Massar xale yi ñemente nañ waaw ah, ay waay Samba jëlal loolu xam-xam fi ay ñaar ay waay xam-xam fi ay ñaar jëlal loolu hop hop hop hop hop jëlal loolu fa la koy delloo maa la wax loolu yow yow kay doo fi jóg jóg doo fi mu jaar ba ñëw a gën a garaaw dara la gaañ nungul nungul ay waay waay nungu na hop hop hop xale bi xam-xam la maa la wax loolu sama yaram daw na jëlal xale bi hop hop hop hop nee na jégalu laay lay la laaw kii de du ñeexu ñebe yoo bopp bopp bopp xale bi mën naa bëre manuel jaar si ndigli for force te du ko bañ bopp bopp bopp bopp sama yaram daw na lii laa bëgg si bëre